asalaamualeykum waaw léegi nag xam naa tàccu yi neex na yooxu yi neex na mais bëgg naa ngeen déglu ma une minute li may njëkk a wax mooy yàlla mooy yaakaafi yàlla subhaanahu wa taala moo tudde boppam alkaafi xam nga alkaafi lan lay firi mooy yow mii musalaate xam nga alkaafi ñaata lay peese boo ko adadee ñetti cent onze mooy trois cent trente trois yi ngeen dajale bërki démb kon li ma bëgg ngeen xam ko mooy lii ngeen di def nit mënu ko Ousmane Sonko mii mënut lii man mii mënuma ko lii porose yàlla la yàllaa ko yore kon amul tiit amul ragal ñaareelu mbir mi ma bëgg ngeen xam ko mooy Benno Bokk Yaakaar déglu déglu ma déglu leen ma rek déglu ma noo déglu ma rek déglu déglu déglu déglu déglu dañoo xool constitution Sénégal xam nañ ne seen président bii wërta bokk ci élection yi ñu dajaloo ne ko par force da ngay dem waa ñun nag comme que ñiñ dénk réew mi ñoo mën a dajaloo ci ginnaaw benn nit ne ko par force di nga dem ñun sene Sénégal ñoo ne Ousmane Sonko par force doo dem leneen li nga xam ne dinaa ko jeexale lii nag ndigal la ndigal mooy yéen a gën a xam ne amul lenn lu ñuy maye lu ñuy jël di ko may Ousmane Sonko kon xalaatu leen ñu jël nooliyee di ko may Sonko loolu moom yéen ñëpp xam ngeen ko mais léegi dossier bi yóbbu nañ ko chambre criminelle lii ma leen di wax nag damaa bëgg yéen ñëpp ngeen dégg ko chambre criminelle amul benn dossier bu fa mës a dugg ci at mi ñu atte ko ci at mi ñoom nee nañ politikuñ nee nañ dossier euh, privé la seen yoon nekku ci kon nañ respecté procédure bi nga xam ne moom la chambre criminelle masa doxe saa buñ jàppee ab atte ci at mii muy 2023 bii suñ ko ci attee rek na ngeen xam ne bëgg a empêcher Sonko mu nekk candidat moo ko tax a jóg waa loolu nag loolu nag bu amee ma ne loolu nag bis bu ngeen déggee ñu ne fii ak élection yi jàpp nañ datu Ousmane Sonko di ko atte Macky Sall di nga xam ne réew mii ay sëti Serigne Touba fi ne ay sëti Maam Abdoulaye Niass fi ne réew mii sëti Touba ñun réew mii sëti Njaajaan Njaay fi ne ñun réew mi jom jom ak fu est-ce que sama soogay basa basa basa basa billahi wallahi eh. talahi ou sont les patriotes